yéen a ngi déglu Baol Média FM. gis nga réew mi gis nga benn nit bu doon ñaari nit a ànd ak ñoom desetuñ benn parce que dañoo war Sénégalais yi jaay le suffrage des Sénégalais yu meroon ci Macky Sall am yaakaar ci moom ñi ko voté loon ñëpp dafa jaay seen suffrage. de bu ñuy wax deal rek Idrissa Seck mooy le dealer du siècle. c' est le dealer du li mu def Sénégalais yi. wor la bu nga xam ne ni liñ naan wor ku wor ren mu jël jig la fii ba déwén dañ la koo jiiñ mais moom wor bu rëy rëy rëy la wor sénégalais da ngay xool am na ñu nga xam ne ni gisuñu woon PDS ci département de Mbacké bi gisuñu PDS bokk ñu ne comme PDS bokkul moom dafa bokkoon ci famille libérale boobu xëy na am na ak coppeeku ñu ne nañ ko xool ñu bari ñu nga xam ne ni dañoo mere Macky Sall wala ñu am ñu daan voter PDS wala am ñu faroon peres dañoo dem voter Idrissa Seck bu boolee voix yooyu yëpp yokk naqari doomu aadama yi dem jébbal ko Macky mu metti nit ñi ba léegi góom boobu wéragul ngay fàttali bien sûr non lu raw jébbal bu jébbal sax moo ko mënoon a moo amoon baat boobu wax loolu la def Macky li indi li mu def li mu def bu ma wënoon am baat bu raw njébbal dama koy wax parce que def il a trahi son peuple man xawma moom moom lañu war a radier ci liste yi parce que mériteetul bokk ci liste yi haute trahison la def dañ ko war a juger yóbbu ko cour de justice de la ay lay tamit ñu dëgër vraiment ay lay. non dëgërul dëgërul daal la boo ba ko réew soxlaa bu ko neexoon Macky Sall duñ ko du joxee résultat duñ proclamer ay résultat résultat préfabriqué yooyu bu neexoon Idrissa Seck du am waaye nag bu ñu wàññee fan yi mu wax ne mi ngi wax moo mu ngi doon waxtaan ak Macky donc bi bi muy bi Sénégalais yi di bëgg a xeex pour jël li ñu moom ndekete idi moom ma ngay waxtaan ak Macky ci. post bu nga xam ne ni buñ ko ko joxee jox ci nitam mën naa jaay suffrage yooyu yëpp loolu loolu loolu ñëpp la yéen ñëpp am na benn sama benn waay bu nga xam ne Idrissa Seck rek la bëggoon biñ demee ba nekk ci affaire ñu jot écho que ne Idrissa Seck mooy yeexal euh, remaniement bi ndax lu mu war a jël ak lu ay mbokkam ay ay famille ay war a jël li ma ñëwee wax ko ko ne ko il paraît que sa waaye ko yeexal daf na ma noonu loolu mënta nekk idi du def loolu su ko defee ma bako moom nag homme de parole la ba mu ko defee la ko ba te moom dafa wax ma dégg mais am na ñeneen ak ñeneen noonu lañ mel ci Idrissa Seck loolu moo lay firndeel département de Mbacké bi sans le PDS ci la demee noonu PDS lu mu laaj da dox di wër sax ñu ne la yéen fu ngeen yéen a ngi déglu Baol Média FM.